yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ki nga xam ne xam yéen xam ngeen ko muy sëñ Ablaye Diop miy jiwte kuréel bu mag bi kuréel Hizbut-Tarqiyyah sëñ Ablaye duñ la téye lu bari ndax xam nañ ne temps bi xat na sëñ bi léegi mu yegg si dañu bëggoon rek ngeen wax ñu ren bi bisimilah bisimilah bak sëñ Tuubaa sëñ Mansour ñu ngi ziar bu baax a baax a baax euh, ziare mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp te jiital si nuyu bi euh, ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba moom Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg euh, ñu ko tëralee ren xam naa ne si euh, lu ndax diiru weer bi lañ koy ànd ak bi fii nii si résidence bi lu tàmbalee cinq heures et demie ba six heures et demie nag yaakaar na mboolem kuréel yoo xam ne tànn nañ ko si ISRA ko wala si ñaar ko ñett. wante ñaar fukk ñett yooyu dañoo tànn juróom benn yoo xam ne ñoo sa seen yi gën a wér gën a dëppoo ko nu ko sëriñ bi bëggee ñu tànn leen ngir ngir ñu def ko ko defal ko ñëpp ginnaaw loolu tamit am na fukki kuréel ak ñaar yoo xam ne euh, tànn nañ ko ñoom seen digal mooy fi seen ji war a génnee ñoom dem ñoo koy gàttandu ji buñ paree ñoo koy gunge kon loolu fukki kuréel ñaar yooyu dañuy jóg si biir région yi kon nag kuréel yu mag yi xam ne tànn nañ ko tamit muy lu mel ne kuréel bu mag bi Hizbut Tarqiyyah kuréel 1 euh, ak kuréel 1 euh, Daara ak 1 euh, Thiès ak 1 ak 2 2 Dakar ak 2 Touba kon yaakaar naa ñoo war a seq diiru weer bi war koo ànd war koo moo def ci kanam sëriñ bi bu fekkee ne yéen ngeen fukki yeeg ñaari nag ñu ngi yóbbu dugg si dëkk yi moo xam dañu jógee Kaolack wala Saint-Louis ba Louga ba Mbour ba Mbacke Bawol ba jubal ba Bambey boo defee ñoom ñoo saxoo bu 5 heures jotee rek ñu dem taxaw buntu kees sëñ bi. di yëkkati xasida bu sëñ bi génnee ñu ànd ko bungi ko ba ak egg si biir mbaar mi ñoom dañu po dañuy posé na toog si buntu ba euh, bu waxtu bi jotee bañ ñaan ñoom it bu sëñ bi génnaatee rek ñu ànd ak moom bungiwaat ko ba ba mu dugg si biir Cees kon noonu ñu ko mën nañ laa jéggal nga dellu ci njàng mi ndax xam naa ni sëriñ bi gis nañ ni mi ngi yegg si kon dafa mel ne daanaka li ci des mooy sëñ bi bu dugg see rek njàng bi tàmbali te gannaaw yaay jiite kuréel bi ñu lay sant bu baax ci teewaay bi jërë ngeen jëf kon mbooleem mbokk jullit yi ñu ngi leen sant bu baax kon ni ngeen ko xamee kon sëriñ bi moom gis ngeen ko ci image yi mi ngi waaj a yegg si ci biir salle bi te xam ngeen ne bu yegsee rek euh, programme bi day daal di tàmbali muy njàng mi donc très rapidement nous allons faire une petite synthèse pour ceux qui suivent nos émissions en français pour dire qu'en ce premier jour du mois béni de Ramadan nous sommes à la résidence Cheikhoul Khadim à l'ouest de la grande une tâche qui a été confiée à Hizbut Tarqiyyah et à l'ensemble des groupes qui la composent et ils auront à cœur de le faire une succession de ce travail du premier jusqu'au dernier jour du mois de Ramadan pour dire donc que ce sera également un, une même atmosphère de béatitude, une même atmosphère, n'est-ce pas, d'extase en ce mois béni puisque, pour rappel, c'est une décision ou bien c'est une prescription faite par le calife pour faire revivre, pour ressusciter ces moments, n'est-ce pas, euh, d'extase et ces moments euh, de ferveur que le cheikh Ahmadou Bamba a vécu à Djurbel. Et le calife a eu à cœur de nous faire revivre ces, instants pour que nous puissions en tout cas glaner hein, toutes les faveurs, tous les bienfaits qui sont rattachés à ce mois. Ce bois à l'endroit duquel le chef n'a pas taré d'éloge. Il disait que c'est l'éminent hôte il disait que c'est l'autre prestigieux, il disait que c'est l'effaceur des il n'a pas tari des roches à l'endroit de ce mois puisque c'est un mois particulier en l'endroit euh, pour lequel, n'est-ce pas, c'est une occasion privilégiée pour rassembler des bienfaits. Donc le calife est entré dans la salle, euh, vivement donc que nous, que nous n'est-ce pas, cette déclamation. Et aujourd'hui, c'est le Kourel 1, le premier Kourel de Isboutar qui a la charge de déclamer les Khazins devant le Khalif General des Mourides. Le programme a été déjà ficelé pour tout le mois. Les Kourels vont se succéder, n'est-ce pas, du premier jusqu'au dernier jour du mois de Ramadan. la santé d'être là présent et que notre Seigneur accorde une longue vie et une santé de fer au Khalif général des Mourides, Cheikh Moudou Mountakha Mbaké. Et vous êtes en train donc de vivre en direct cette, euh, ces moments euh, à, à, la résidence euh, Cheikh Khadim qui se trouve à l'ouest de la Grande Mosquée où ce programme, ce un protocole immuable du premier jusqu'au dernier jour du mois de Ramadan. Donc euh, nous prions que Dieu nous donne la force et l'entrain pour que nous puissions et que ce soit également un rendez-vous fixé et que vous ne dérogerez pas à la règle du premier jusqu'au dernier jour. Donc, euh, sans plus tarder, nous allons rendre l'antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا خير ضيف أتى بالبشر والمداد